yaa xayra dayfin ataa bil bisri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bilaa hadadi يعود أبدا غير المرام هديتي موجلة كل مليم كان مناجيا وزاق مليم بهوت واجيا النصار الله هي بلا إله إلا الله بهوت واجيا النصار الله هي بلا إله إلا الله بهوت واجيا النصار الله هي بلا إله إلا الله jërëjëf sëriñ Saliwa jërëjëf Serigne Saliou kamaan nga mam sañ sant laa gën a woon Mbàkke sant keneen ku dul yow dem feneen sawaay du ñeewaay kenn la gis di dem fanaan sa waay du ñeewaay keneen sa waay du xaa kem taan nga maam ya jara doylo maam ya jara doylo maam ya mata xam maam dalaanan sa siniñ saanu dimbali nga noo maam saanu xettali nga noo maam saanu bul noon ak yow mu ñaaw kenn nga fi maam saanu sant laa gana waaw sant leneen du dul yow lu ci yaw moo gën dem feneen maam Saaliw jërëjëf Sëriñ Saaliw jërëjëf maam Saaliw jërëjëf ateeti maam Saaliw yaakaari jàmm ñi maam yaa ma ko doy na maam jajar rakamam salu kim daan gamam salu subhana rabbika rabbil xasani wa sunu salaam ala muslimiin walhamdulillahi rabbil alamin barke borom Tuubaa xasidi sunu maam Saaliw Mbàkke na fi yàgg loolu te wér am kàttan lu wér ko ànd ko bëggee tan ànd ko moom barke borom Tuubaa barke Cheikh Ibrahima Fall barke Maam Mor Jaara borom Saam yaa xayra dayfin ataa بالبسر والمداد أهلا وسهلا وترحيبا بلا هداد